ji ba jàngat nga ci def. xam nga ndaw ñi dañ leen jàppe woon ndaw ndaw ñooñu ñoo màgg. 2012 hmm. euh, ak léegi 10 ans ku mu yokk ci say adduna nga lëf. xëy na booba expérience bi xawoon na des faut pas oublier maam. Hmm. Euh, gis nga nit da koy gis rek sous-estimer ko. li mu jublu ci euh, prise de parole bi mooy xëy na recadrer tuuti ki am xalaat ba yeggee ko Pa Assane ci gestion Ahmed Aïdara ci mairie bu Guédiawaye mhm. koo xam ni depuis deux nga commencé def stage mhm. nekk ci rajo di def revue de presse chaque jour le Sénégalais bi di yëg ci information yow yaa ko koy wax mhm. bu expert waxee ci économie yaa ko koy jottali bu expert bi waxee ci wàllu société yaa ko koy jottali bu dee wàllu politique yaa ko koy jottali sa curiosité permettre la nga dugg ci rang politique gu PDS bokk UJTL ku euh, euh, topp ci ginaaw Abdoulaye Wade mu yar la couvé la nga màgg continuer ci métier bi nga nekk ndax passion bu ngi ci am jaar rajo Futur Média di def revue de press wax naa ni euh, présentateur ak kii def revue de presse élève la ñu buy jàng chaque jour parce que chaque jour ñu liir ci ay quotidien loo xam ne yow mi ci biir doo ko liir yow mi nekk ci école bi doo ko liir yow mi nekk ci université bi doo ko liir te xalaat yooyu ñuy dajale wala euh, textes yi ñuy ay spécialistes ñoo koy bind ay journalistes yu fekk ay faits ñoo koy bind ngay anime ay débat euh, waxuma la temps bi mu def Futurs Médias Ahmed Aidara bi mu ñëwee seen TV ak léegi mm-hmm. ñaata nit ñoo jaar ci seen émission seen jotaay ñaata nit mm-hmm. ay téeméeri téeméeri nit yoo xam ni kenn ku nekk ak sa spécialité bopp fi nga jëm li nga jàng li nga am ci xalaat li nga am ci plan politique li nga am ci stratégie sa ay may fi nga dëkk sa ay compétence mu séq ak yow waxtaan une heure de temps pendant presque dix ans muy animé émission boobu Ahmed Aidara ci ambition bi mu bi mu commencé créer benn mouvement euh, boo xam ni mouvement la nii nii rek citoyen eh, nii la dem yaayam inscrit di jàng ni ma alaaj dama damay jàng man ko bu looy def mun ma bachelor laa bëgg dem jàngi gestion territoriale IAM mhm. mu ngi ak diplôme ñi mu bokkaloon di jàng duñ ma bàyyi ma weddi ñi taxaw di wax lu lu lu nekkul dëgg mhm. ci ci am njàngum nit jàng ba am diplôme am continuer activité am ci wàllu politique mu dugg ci waa biir Géejawaay kuy politique mu am ak yow affinité mhm. kuy nitu diine la même chose kuy nekk ci wàllu nawetaan ni ki noonu ci wàllu làmb ni ki noonu mais ñooñu ñëw composé ab société bu mu man di doon dem ci jigéen ñi bu fekkee mbooloo la mu doon dajale cent cinquante mille mu dem taaba taaba taaba taaba taaba buy ñaan ñaan buy leb leb buy dajale salaire am dajale salaire am ba mu mat cinq cent mille mu jox leen lu ëpp li ngeen doon am di leen fréquenté xeeboo xew du ngénte du ceet du dëj mais lan mooy xam-xam pour diriger ab commune mhm. mooy xam ni waa commune ba soxla xam ni réew may doxee jàng am sa diplôme et après am courage dund ci dëkk ba tuxuwoo demoo dikkoo nekk fa surtout mais loolu la soxla ci kuy jiite ab commune. tey ki jiite suñu réew mi ay malaaka wàccu ñu jàngal ko ay nit ñoo wàcc jàngal ko mu nekk ingénieur keneen ku man mën di doon fa nga nekk xam-xam ba nga ni am nga ko aw kayit lañu ko firndeel wu ñu bind jox la mu ñu ni ñu ni diplôme la tudd. te la def ci sa ay business bopp tey par exemple ki nga xam ni ingénieur la ci wàllu gestion. bu amee benn benn benn benn verger ci àll ba. di fa def élevage nag xar di fa bay di def ci wàllu récolte ci limon màng quantité bu ëpp boo xam ni pratiquement moo ëpp sax euh, la muy jëriñ ci société ba mu nekk ci wàllu gestion waaw danga nga wax da nga mën wax ni kooku xamul dara ci wàllu société xamul dara ci wàllu entreprise parce que lii dong la xam kii dong la xam non tu te trompes lourdement donc euh, am na wax boo xam ni day xaw a saf tuuti méchanceté la foofu baaxul mm-hmm. Euh, ndaw mënta def ci communication journalisme aw ci ay organes yi mag lu toll ci ñax fukki at jàng ba noppi euh, lépp luy quotidien nga koy liir ñu ni la nan ngay doxale ab commune <laughs> loolu jaaxalul Ameth Ameth mën na doxal sax lu dul commune moom kay dañu koy wax yàlla na ko ndam li jik allahumma amiin yàlla bu ko cet jiitu amiin amiin courage bi mu am motivation bi mu am ci ñu koy xas di ko sikkal fii di ko critiquer fii mu xeex fii dugg fii uniquement pour amour bi mu am ci localité am man des fois ma tooñ ko man ko man jot bi nga am laa amul man oo ma jot boobu oo <laughs> jotu xeex man su ma xëyee toog samay xar dafa maa gën a féexal mais kooku bu def courage def jom jom jooju naka waa géej yooyu gépp jàppale nañu ko jàppale mu def résiltat liggéey dëkk ba lii ay xalaatam nguur jàppale ko ci dëkk ba gis ci seen bopp et dinaa la wax benn affaire ni mu def ki dem ak loxoy kese mhm. ba yan sa bopp mhm. yenn la dina jafe mhm. gis nga ku bëgg ku bëgg ku wane ni da nga bëgg Guédiawaye wala nga bëgg Sénégal tu es nga collaborer ak Ahmed Aïdara mhm. tu es nga liggéey ak moom parce que fi mu commencé bi fi mu yëgsi la comme Barthélémy Diaz comme Bamba Fall Medina mhm. mhm. comme docteur Malick Diop moom itam xoolal yoon bi mu jaar nekk ci jeunesse socialist créé fa benn benn structure am ci biir PS coow li fa am mu mujj génn ba ci coow li mu la bi ñu koy créé naan ko gelawaar doo ko yokk ci sa parti ça sert à quoi gelawaar. détail Babacar Diop Babacar Diop mu am courage. Mhm. Thiès. nit mënul woon gëm ni tey Babacar Diop ci at bii ci élection mhm. yii nii dina jël Thiès. borom ci ña fa nekk Idrissa Seck. Yankhoba Diattara. Euh, Talla Sylla. Euh, ak ñeneen ak ñeneen ci ay nit yoo xam ne nee nañu ay hommes d'état lañu. nee nañu xëy na ay fonctionnaires lañu nee nañu xëy na mhm. ay. ay directeur de société. société ay inspecteur impôt et domaine ay yeneen ak yeneen ak ah. yeneen. mais mu gëm li mu gëm ni waa Thiès man ak yéen la ñoo tolloo ñooy àndandoo di dox di jógandoo di daanu lekk suñu ay boolu dof suñu ataaya mbedd. et loolu. mooy réalité bi Sénégalais yi gëm bañ leen a xeebal seen ngénte. Mhm. bañ leen a xeebal seen jàng bañ leen a xeebal seen i conférence euh, bañ a xeebal kii tabax jàkk nga def ci benn tonne. bañ a xeebal ki am jàkk nga jëndal ko benn rajo. c'est-à-dire ay dund ak askan dund ak yu ndaw la. Hmm? yu ndaw la yoo xamante ni bii. nopp naa xeeb. Hmm? Euh, Ameth mosuma ko wax ni ma ni ma alaaji souvent même vigile bi ngay jël muy ànd ak yow doon doomu gox ba te sax soxlawoo sécurité mais da nga koy mettre en l'aise da nga koy permettre mu am benn petit salaire boo xam ne dina ci gis boppam c'est-à-dire pour wax leen intelligence. sociétal dafa am solo. Hmm. saa di dund xam askan wi nan nga leen di. touché yooyu dafa am solo. loolu xam-xam la xam-xam la. Ah. <laughs> te loolu mooy def espoir. Hmm. fi mu nekk waa Géejawaay euh, nekkul ne dañu am déception de hmm. mais seen espoir ci am dafa ëpp. <laughs> dafa ëpp noonu la mel ci beneen beneen localité yaakaar bu mag la ñu am si moom. yaakaar bu mag. yaakaar yaakaar bu tas dafa ëpp. incha allah bu bu bu cat dogalewul yaakaar du tas. parce que. Euh, mënut ta soppeeku. Mhm. xam nga am na fexe foo xam ne boo fa jaaree Pa Assane. Mhm. Euh, boo nekkee tey Mambay par exemple je donne exemple Mambay Tëngéej. Mhm. ku commencé ci benn rajo bu ndaw jokkoo kocci kocci kocci kocci tey bu ko neexoon fii lay ut benn appartement waa ah. Tëngéej duñ ko gis. Ah. du retourné waat naan day bokk ci ay liste conseil municipal. parce que li mu ci jublu mooy rek wan waa dëkk bi ni maa ngi ci yéen. Mm. maa ngi seen nawetaan maa ngi ci seen nangam maa ngi seen nangam waaw mm. banquier. bi nga xam ni dafa jékki-jékki investir wu nekk ci wàllu politique pour nekk maire wala ingénieur wala technicien est-ce que moo gën a mérité wu euh, kii nekk taskatu xibaar pour ni dëkk bi itam bëgg naa dugal sama loxo ci liy wax dëkk bi félicitations à aussi Ndoye baan ah, ah gis nga. wax ah naa leen ko ñoom ñaar benn jour. damay lay nettali benn anecdote bu doy waar. Mhm. àdduna lu rafet moo am solo. Mhm. dañu tase man ak Ndoye baan ak ay Aïdara ci kër sëñ Abdou Karim mhm. ca tool ba. te kenn xamul woon ni nit dafay dem ñoom mm-hmm. Ameth xamul ni Ndoye dafay dem Ndoye xamul ni Ameth dafay dem. Mm-hmm. ñu daje fa ñoom ñaar. Mm-hmm. ma ne sëñ Abdou Karim Mbacke euh, ndokk yàlla Mbacke Balla bi fi ñaar ñi daje. parce que kii sama xarit la depuis très longtemps mun ma koo bàyyi ndax kii. kii sama jumeau la fu ma jëm ñooy ànd. mun ma koo bàyyi ndax kii. te ñoom ñaar ay ngi nii neexoowuñu. sëñ bi wax loolu dañ. sëñ bi ni leen yéen xanaa xamoo leen li leen yàlla boole yéen. ci seen destin yéen dëngoo warul leen damaa bëgg ngeen joxante loxo léegi te bu ma fi déggaat ay te ma wax la baneen lu ci doy waar ki jur papay ay Aïdara ak ki jur yaayu Ndoye Bane ñu bokk ndey ak si ci <laughs> dafa xat foofu la feeñee ñoom mbokk go foofu la feeñee ñoom ñaar dafa xat Assane Seck bi ñu tuddee université Assane Seck bu Ziguinchor mhm. moo jur yaayu Ndoye Bane gis na sœur moo jur papay Ahmed Aïdara gis na lool juboo googu noonu sëñ bi junji leen ni yéen seen destin dangeen ko bokk gisal li am tey mhm. mbetteel gi am ci wàllu falu gi ci mhm. <laughs> Ndoye Bane mhm. mbetteel gi am ci wàllu falu gi ci Ahmed Aïdara ak yeneen c'est-à-dire yu sew yooyu dafa ëpp a xeeb parce que dafa am solo ci li ñuy wax carnet de jardin nit ki daf koy bind ci ay ci ay yu muy ci ay secret yoo xamante ni ëllëg nit mun na ko jariñoo ci wàllu xam-xam dafa am solo ci wàllu